وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيق إلا بالله ñu ngi sant mbokki taalibe yëpp di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu baax di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér di xam ne fii ñu nekk tey ñu ngi ci Pàkku Lambaay ci bis bi nga xamante ne bii moom la ñu sëñ Mountakha tànnaloon muy premier rajab ñu fas yéene di ko màggal fii ci Pàkku Lambaay ñun nag yàlla daa fa dogal ñu dénk nu wàllu waañ wi ñun ñi nga xamante ne bii ñoo nekk fii ngay gis ci image bi ku mel ni suñ ndongo mi nga xamante ne bii moom laa nekkal ci waañ wi mu nekk jëwriñ ñu nekk ci ginnaawam ak ku mel ni soxna Abi Dia ñëpp xam nañ ko ci bàkku làmbaay bi di ak soxna Assongom ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci wàll soxna yi ñun la yàlla dogal ñu dénkunu ak jëwriñ ñi nga xamante ne bii ñoom la ñu àndal liggéey bi yàlla dogal ñu war ko saytu liggéey bi. ah di ñaan yàlla suñu boroom tamit defal la ci ndam ndax liggéey bu yàlla dogalee ñu teg ko si sa loxo euh, lu demee ni waañ metti na waaye nag lépp liggéeyal sëñ Tuubaa la ndax mbirum sëñ Tuubaa mu nekk ku nekk day am foo xamante ni fan la lay féetaleel te fan la lay féetaleel foofa foofa loola suñu borom di fayee foofu la sëñ Tuubaa di fayee yàlla suñu borom dogal na ñun ñu féete ci wàllu waañ wi di sant yàlla bu baax a baax a baax nag ak jëwri ñi nga xamante ne ñoom la àndal ci waañ wi ah, tàng na metti na nag waaye lépp nag sëñ moo ko jar te bis bii dari bis boo xamante ne dañ koo fonk lool mooy bis bi nga xam ne Sëñ Muntaxa moo ñu ko tànnalan ci làmmañu mu tedd wa ne bëgg naa bu ñëwatee yéen waa Pàkku Làmbaay na ngeen ko màggal kon moo tax ci moom lañ fas yéene ah, di ko màggal tey ci la nekk nii fas yéene ci ànd ci bisab euh, bis bi nga xamante ne mooy premier rajab fas yéene jàngal xuraan jàng xasaayit fas yéene bernde gan ñi ci kàttanu yàlla yonent bi Sëriñ Tuubaa kon xam naa ñun dañuy wàcc foofu suñu kàddu إلى كل فيل يا متكبر الكل يا الله يا خير خلق الخلق لما أساء أبدا بالبر والسر والرلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدونا سم وهم لي الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله خلقت لي كل سن بالغد أتيت به لسبب سكريا وابح يا الله خلقت لي كل سب بالغد أتيت به لسبب بسكريا يا خضار يا الله خلقت لي ربيعك دعي بلا سبب مني عمدتك يا xaar yàlla wabtali min kaasu lan baa xamas alate ansibillahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim barkëb sëñ Fall waaw comme ni ko jëwriñ Alsaan Kan waxee rek bis bii dafa nekk bis boo xamante ne bii bisa waa pàkk waa Lambaye gépp la ndax sëñ Muntaxa moo ñu ko tànnal jox ñu ko muy première bisu rajab biñ ci waxtaanee jëwriñ ñi nag ñu dénkoon ñu wàllu waañ ñu ànd ci jigéen ñi ku ci mel ni soxna Abi ak soxna Assu léegi nag fii togg nañ fi 30 mbana togg nañ 600 kilos ceeb togg nañ 600 kilos ceeb ak 30 mbana togg nañ ko fii nii loolu lépp bu ñu ko xoolee budget bi toll na ci valeur bu million boo xoolee boo xoolee mbana yeeg liñ togg ak ak dépense lépp daal toll na ci ci ci. budget wu deux millions na nag ab tàmbali ñu ngi ñaan nag ñu àggaleeg jàmm ñu ngi ñaan képp ku dégg suñu kàddu yi nga ñaanal nu lii ndigal lu saa bu ñëwatee rek ñu gën koo mën gën koo jekku ndax murit moom amul leen lu ndigal kon nag ñu ngi siyaar ñëpp tey jégalu ñëpp jërë ngeen jëf. أعمال لي بريضا فاشكر مبعثتك daarayni يا الله غفلت يا قافل أنا لي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله رضاك يا رافع دارني مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رأيت يا ياسود دار مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رأيت يا رافود دار مرتبتي بلا انقفال بفضل lin minka ya Allah anta muyi sulasi la sabtu istatu xilan muyi sal waaxid bal fika ya Allah anta musillu lasi salali sati alim suwal jinnu wa saytaanu ya Allah anta sabiu lasi naa asalaamaaleykum naan bisimilah rahmaani rahim ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp ndaxte ñun lii ak cant la ndaxte ku mel ni sëñ mu Mountakha mu tànnal ñu bis ci première rajab ñu fas yéene ko sant kon loolu sant la ñu ñaanal suñu jëwri nii nag muy sëñ Ndongo ak Alsaan Kan mi ñu yàlla booleel fii ci waañ wi ak soxna Astou kon nag loolu sant la ñoo ngi leen di ñaan tamit yéen taalibe yëpp ak ñun ñëpp ñu dollee ñaan ba bu déwénee luñ man rew bu déwénee ñu mën lu ko ëpp ndax sëñ Muntaxa moom kum ñaanal rek loolu jar na sant te képp ku fi ñëw di barkeel tamit ñu lay ñaanal yow tamit yàlla may la ñu fekkewaat ko lu bëree bëri bëri wax ji nag moom damaa mënta wax ci micro mais nag maa ngi jéggulu bu baax a baax ñun daal sëñ Tuubaa moo ñu ñor أنت الخبير الذي آيت خمرته وخدت لي منك ما الغيب يا الله أنت الأليم الذي صحصحت جملة ما لم تر لأمدي لغير دهر يا الله أنت العظيم الذي baala lazaamatu li xuut falan asi man minka yàllaaw alxaraaru laasi li xut مغفرة مات قيوب برادي تعنك يا الله لبيك ريدا ولي سكرت جمي أسى يا الله أنا لا يلاسي